Zarko nag nekk euh, mbër moo xamante ni fi mu toll nii. yëngal na làmb ji nekk mbër moo xamante ni fi mu toll nii. Euh, kenn moo yor coow li moo wax ko de moo yor coowu làmb <laughs> moo wax tey ma seet ko bëgg waxtaan ak moom ci Zarko bëgg waxtaan ak moom ci yenn xale yu ndaw yi nga xamante ni nii euh, téye nañu làmb wala làmb bàyyi na leen xel PAS nuyu naa la. fay naa la bu baax a baax. di la gërëm di la sant di nuyu sa caméraman bi di nuyu monde entier di nuyu ahlu làmb di nuyu waa Parcelles Assainies 1 vingt 26. di nuyu tamit waa Nioro saalo bi ma dëkk. Hmm. Mhm. Euh, balaa maa ñëw ci sa ko sax ñëw ci xale yi sa diggante xale yi parce que gis naa xale yu ci bay ci sa loxo la ñu nekk sa diggante yow ak ñoom lan la parce que gis naa ko ci mel ni Ardo sa loxo la nekk ku ci mel ni Baba Jaxal booy lim daal doo fi jógee xale yu bay bay yoo xamante ni fi mu toll nii dañ naan ñoo yow mhm. ci sa loxo lañ nekk sa diggante yow ak ñoom lan la ak naka nga def. Euh, ba ba ba ñu yëg bon loolu moom dama ci sant yàlla bu baax a baax a baax euh, parce que booy yi moom da ngay yor tey benn booy bu mel ni Kaa Gourdin mm-hmm. nga am looy liggéey ak moom waa ko ñum gis la. Mm-hmm. xam nga bu ñu gisee booy bi di def benn performance bi dañ ko naan boole ak sa ménagère. Mm-hmm. fu mel ni géej waaye ni may dund ak caaru daaw dafaal ma koy nuyu de passage di ko jaale waajuram bi mu ñàkk. di ko ñaanal yàlla yàlla xaaree ko àjjana mi ngi ndar war a sam samedi ndogal dalaat ci kaw mu nekk jàmbaar nekk jullit. Mhm. ba ma ko yëgee tamit loolu laa ko wax ko ko ma ne ko jullit nga jàmbaar nga loolu ngay woote kon na nga dund ak moom ndax bokk na ci jaamu yàlla nangu dogal. dëgg ba muy préparé gaaroo gaar la suñu borom jël waajuram bu góor. Mhm. mu ta bëri combat boobu. Mhm. bii tamit a une semaine du combat yaayam jël yàlla jël waajuram bu jigéen. ñu ko koy jaalew di ko masaw di ko xam ne que c'est la vie àdduna moo demee noonu. mais combat boobu nu mu koy def incha allahu rabbi waxtaan naa ci les de mais am naa yaakaar dinañ ko bëri si kàttanu yàlla daal. waaw ñu koy jaal moom tamit waaw di ko jaal bu baax. Hmm. bu ñu la gisee ngay def performance si moom tamit si lañ ma jox booy géejewaay yu bëri. Hmm. Baba Jaxal tamit Jali Birama Coor bi ñu ma ko joxe ma am lu ma ciy dund ak moom ba moo tax gars yi daw ñëw. mooy hmm. dund ak noonu tamit ku mel ni ay Ardo ay Jackson 2 booy yu bëri bu buun donc loolu kese la quoi. Euh, sa diggante ak Zarko parce que dañoo gis Zarko euh, nekkoon na fi ay jamono bëri fekk ku mel ni Modou Anta bëri mhm. ku mel ni Siteu. bëri fekk mel ni Guy gi bëri fekk ñu bëri bëri bëri mais moment boobu euh, demoon na sax ba dañ ne Zarko découragé woon na ci làmb. Mhm. ñu gis mu daw dem Europe toog. mais ñu jékki-jékki moment bi mu nekk Europe ñu ci bàyyi na muy muy muy dugg ci live Instagram yi di woote def ay vidéo ñu ci bàyyi naan Zarko pare bu bëree dafay wax pour neexal wala day bañ a xew yi ñu ci bàyyi naan boo ko joxee sa avance sax du ñëw day daw ak sa avance mais ñu jékki-jékki gis mu ñu ne cëpp Sénégal bi mu ne cëpp Sénégal combat am taxaw coow lu bari lool premier face to face bi mu def ñëpp na Zarko dafa jël yu bon ñëpp na Zarko wax ay wax yoo xamante ni daal mais muy def lu loo nga xamante ni dafay neexal làmb. Hmm. loo xamante day dekkil làmb sa yow ak moom ak ak ak ni doxalee ci biir làmb. c'est que Zarko suñu borom noonu la ko bindee. Hmm. maa moom su lañ dëkk. mais xam naa ne nii la suñu borom bindee. Hmm. boo demee ci yaayam dana la bu wàccaan école ñëpp moom la ñuy ndiiraan topp. baabu si boppam mi nga xamante ne si moom laa boole woon ak bi ñu ma ko joxee daf ma ne Zarko la yàlla may lu mayul benn mbër. Zarko même mooy mbër moo xam ne même day daanu kacham di yéeg Modou Lo amu ko Balla Gaye amu ko keneen ak ñu bëri amuñu ko ku ci daanu rek sa kase wàññi nañ ko. muy Balla Gaye muy Bombardier muy Eumeu Sène ku ci daanu rek sa kase nañ ci dara Zarko keroog ba mu daanoo la kacham gën a mën a yokk kon loolu la ko borom jagleel. Hmm. waaw muy mbër moo xamante ni si tamit loolu dañuy wax ay bi muy bëreeg moo Anta. Hmm. bi ma ah, Assane Ndiaye joxe avance bi. mu hmm. ngi Espagne daf ma ne ko wester ma ko. Mm-hmm. dama a wese ñuy nëpp ne ma Zarko du ñëw. Mm-hmm. moom muy nekk tamit nit ko am kàddu. Mm-hmm. bu la ne tey lay dee rek tey lay dee. yoo koy envoyé xaalis bi jot naa coup de fil bu nekk bu ko yónnee xaalis bi du ñëwaat di nga la yóbbu police di nga fay nga def nii. ma wàkkeerlu rek jox ko ko mu ne ma man maay bëre. yónnee ma sama xaalis ma yónnee ko xaalis bi li ma ci am mu jox ma ko. yàlla dogal ba mu waree ñëw cëpp. na ma jour bii laay ñëw ni cëpp aéroport ñu ma mu ne ma yegg si naa. Mhm. ba ci combat bi ba ñu koy taxawal ñu bëri ñu ngi naan du ñëw du ñëw du ñëw. Mhm. diggante mbay guy. waaw Zarko tamit dese naa fonk lamb mais lamb ko bëgg. moom moom bëggul lamb mais lamb. lamb ko bëgg. mais dem na ba amaat prise de conscience xam ne tey lu lu mën na am dara ci làmb mhm. prise de conscience boobu dab na ko tamit. mais moom làmb ko bëgg. war ko làmb ko bëgg. mais diggante ma diggante ma mbay guy gi moment bi ñuy jël mbay guy gi ñu ci bàyyi mbay guy gi nekkoon ci alir nekkoon ci alir bu baax a baax moom mu dem ñëw ñu naan Zarko est-ce que du perte repère est que dina mën a tenir mbay guy gi mais mu ñëw ku ne gis na façon bi mu bëree ku ne gis na bi mu dugg see ci bi coow li mu indi parce que dañ daan gis mbër balaa muy simeeku euh, day bàyyi bañ na grand combat bi des na tuuti mais Zarko avant mu tuus Zarko simeeku ne wane na liggéey naa te pare bi simeeku tamit kenn du ne. Zarko dafa tuddoon di nalaw mais mu andi coow lu bay saw mbaam beeg gereesu mbaam beeg <laughs> mais mais mu andi yoo xamante ne daal dafay dundal làmb te waaw caf ka la daal caf ka làmb la mu andi ko ndeysaan de passage ma indi yu maam ñaaw mm-hmm. keroog daf ma ne dafa am ay gars ay jógee Europe seetaan si woon doomu dàngu mm-hmm. mais bañ ñëwee ñoom Zarko moo leen frappé dañ ko Zarko fu muy bëree mm-hmm. ñu woo ñu ñëw seetaan si ko ñoom keroog lañ abonné nekk fan si club Zarko te li ñuy wax ni ci Zarko Zarko ba mu dalee bëre arène ba léegi ba muy bëreeg Pape Mor Lo bi muy hmm. bëreeg guy gi jël saafara guy gi ñu bokk di ko sangoo kon Zarko nii la mas a mel amaana peut-être dañ koy mën a see soog a seetlu léegi mais Zarko nii la mas a mel bu duggee làmb da koy yëngal ba mu yëngu contrat signature contrat am da koy da koy da koy yëngal ba mu yëngu hmm. Zarko contrat moom da koy respecté ah da koy respecté kon ñuy wax naan Zarko dafay tux wala day non Zarko showman la moom ak xool ko plateau moom ak ñoom Père Beck ay moom noonu la mel laay fam yëpp noonu la ci mel. billaahi laay fam yëpp noonu la ci mel. mais saw maam bi ñu sotti nit ñi mënoo ko wax mu arrêté ko parce nit ñaa ngi koy commencé maa ngi ciy dégg yenn mbéy naan bés bu ma ko sottee a dee. <laughs> démb na mbër bu ko wax. <laughs> mbër boobu bës la bëgg pour bëreeg am na ñoo xam ne dañuy créer boucan pour bëreeg yow moo tax démb bu muy xëcc fii dama nga ñibbi fi mu ne nii dañoo bëri bëreeg yow moo tax ñuy créer bës signé benn contrat ñëwul nga bàkku seetaan sa làmb génn aw nii dem ñibbi après loolu la def. mais saw mbaam bi ak graisse graisse mbaam bi mun na koo bàyyi wala da nga koy bàyyi mu xool xool nu mu ko nu mu ko sant. non loolu dama koy bàyyi dañ koy bàyyi waaw dañ koy bàyyi waaw dañ koy mais dama gis dama gis mu jugee mu jugee mu jugee ci lool du ma ñëw sax ci biir combat yi ndax combat wax nañ ci manoom ndax démb dama ko gis mu ñëw arène nationale fekk diggante Garga 2 ak Mama Lamine combat bi yàqu. Hmm. mu def loo xamante ni nii ñëpp da leen impressionné parce nga fekk nit ku ñëw adversaire am ñëwul nga ne nañ ma fay ma bëri moom tay tay tay jooni jooni. Euh, en plus euh, diggante ma Garga 2 nag nee euh, bi muy jàng bëre boobu bi Zarko di nekk doo dowaat muy jàng bëre Zarko mënu koo daan Zarko ne nañ ko jox avance am jooni jooni cinq cent mille mu sëgg bëre. loolu la wax. ah dégg déggoo ko non wallaahi dégguma ko nag dégguma ko. yow dafa ñëw toog ci plateau bi. Mhm. ne ne ne ne Lamine. bi ma joxee cinq cent mille ma sauvé bés bi ma ma bëree ko jooni jooni woo promoteur bi ko billaay ba ma joxee cinq cent mille ma sëgg bëri tey <laughs> waaw moo lay wan ne loolu Zarko show showman la hmm. ah, showman la xam nga loolu dina ko wax mais même bu ko waxee ñun duñ ko nangu parce que am na staff am na encadrement am na ñu yor wàllu mystique am ak yooyu loolu yëpp moo lay wan ne dafa firi maan la day show rek mais bu dee combat bi bëgg na ko garga bëgg na ko bu ko promoteur intéressé woo parce que dañ dem ba léegi ñu ngi ma ci woo mais man ak Zarko dégganteeguñu ah promoteur yi ñu may woo ci combat boobu. pare ngeen pour Garga man ak Zarko déggante guñu parce que Zarko sam. ah non waaw <laughs> dama bëgg mu leer fi mu toll nii bu la promoteur woo woon est parce que dama gis dañu xaw a jege yantoo jàmbaar non jege ñaar ñëpp samay booy lañ. Hmm. Garga 2 sama booy la sama rakk la sama lépp la. Hmm. est-ce ngi dégg. bu baax sama lépp la. comprendre nga. Hmm. mais ñaari mbër yi tamit ku liggéey sa kër ngay yóbbu. Mm-hmm. su dee ñoom ñaar bëggante nañ ma waxaat ñu woo ma ma woo Zarko ne ko ndax da ngay bëre Garga su ma ne waaw su Garga 2 d'accord ñoom ñaar dañuy bëri man dama yàq combat kon kon kon kon kon kon <laughs> man dinaa waxtaan ak Zarko mais maa moom dégganteeguñu wallaahi démb maa ngi moom déggantewuñu mais démb moom am naa ay coup de fil ci combat boobu mais man woowaguma ko quoi waxtaan ak. Zarko moom dina nangu parce que Zarko nee na moom grand yëf dong li fi bàyyi xamewul ku dëkk Pikine nag ku dëkk Passo yoonam nekkul ci yoon. moom bu ñu mënee bëri moom bu dee combat bi moom combat bu war a taxalee incha allah du yàqu ci ci ci ci ci Zarko moom ci kàttanu yàlla. kon fi mu toll nii daal moom mooy mooy mbë mbë mi saf askan wi mbë mi nga xamante ne mooy xew di déranger ñenn. loolu la yàlla dogal nag guddi yi quoi xam ku nekk ak jamono ju nekk tey xew. Mhm. suñu borom moom moom fan yi moom moo xew quoi. mais lan ngay dee mbër yi ba ñu am ba ñu am ba ñu am courage wala am fitu di di di di di doxee nee ni nii. comme démb euh, sama mbër bi Bébé Balla ma koy félicité. Mm-hmm. dama ñëw ba ci géew bi mu ne mu jox ma butéel ne ma sotti ma ma sotti ba pare ma ne ko Bébé Balla mu ne ah ma ne ko Bébé Balla ah, ko ñi nga daan ñëpp. Mm-hmm. ñi nga daan ñëpp ñoo mën toujours pare kàddu googu laa mujjee wax ak moom. loolu lan lay tekki. maanaam kii nga taxawal ni yaa ko mën da ko war a daan fët fët ñu ñibbi. boo xullee ba mu daal na kooku sa problème la ndax làmb amul saar daanu yokk daanu waxaar. pour mm-hmm. ñëw fii raan joob mi nga daan moo ko mën fuuf ay caatu daaw dafaal ñoom nga daan leen kii sa adversaire la làmba leen bël te wallaahi ba ma ko koy jox xamu ko daf ma laaj ma ne ko man xam naa toujours prêt mais ñëpp dañ ne woon toujours prêt mooy favori mais man xam naa ne caatu daaw dafaal moo ko mën kii moo ko man doyoo baalaa ko mën waaw. lii laa mujjee wax ak moom ci géew bi ñi nga daan. Mm-hmm. ba ci raan joob mii. moo mën kii. Euh, bu ñu jógee ci loolu nag damay dugg tuuti tuuti rek benn deux minutes wala benn trois minutes ci diggante euh, ménager. Mhm. ak mbër parce que euh, da nga ciy gis mbër yu ci bari bu ñu doog a démarrer dañuy jël seen lépp teg ko ci ménager. Zarko Zarko comme li nga ma dee laaj di nga doon laaj laaj nag. Mhm. Zarko bi ma ñëwee ci géej bi moom au lieu ma ñaax ko moom moo ma ñaax. dafa ma ne billaahi dafa ma ne bàyyi ma ñoon du ma taxaw ak moom sa kanam bii stress bi nga yomb yow yaa may wàññi. dama bëgg nga firi moom moom moom moo ma billaahi wallaahi moo moom moo ma doon créel moom na ma bàyyil yërëmtalu bi ngay yërëmtalu bàyyil stress bi ngay stressé wu barke alxuraanu karim maa ngi jublu penku maa ngi jàpp loolu la may wax moom ali man maay wax ak moom moom mooy wax ak man barke alxuraanu karim laa la génneel loolu la mujjee wax ak man dama génnal géew bi ma daan ko léegi ñu dem waaw <laughs> barke Seydina Muhammad mu ne ma yow yow sa karam bi combat bi nga yenu yow yaa may def kaa mais du bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon du taxaw ak moom minute mbër moom parce que Seydina Mohamed lii la ma wax. moom au lieu man ma soo kii ko moom moom moom mooy ñaax. sa xel daal nga génn. ma génn abal ko. mais diggante mbër ak ménager. Mhm. da ngay gis mbër a da ngay gis mbër mu bàyyi la ak boppam nga koy encadré di ko wutal combat di ko teg ci yoon mu dem ba ñu koy commencé xàmmee wala mu dem ba ñëpp naan koñ bi am na mbër wala mu dem bañ naan léegi champion bi mais ñu gis mu commencé andi ay ay ay jafe-jafe ci mbër bi commencé dootoo yëpp daa da ngay jékki-jékki a sama combat taxaw na dama jëli xaalis wala nangam dootu la teg fam la doon teg diggante ménager ak mbër bi est-ce que mbër noonu la war a mais loolu moom du ci mbër ci ay nit la. ci ay am na ñoo xam ne nu mu mënti demee dañuy gore. Mhm. soo gisee ma bëgg Siteu trop Siteu dama koo bëgg ndax daa bëgg père Max mbergan da koo mhm. yéene. dafa Siteu moo tax ma bëgg ko ma maa bëgg Siteu ndax dafa bëgg Max Mbergane fàttaliku démb dafa am ci ay nitam. Hmm. am na ñoo xam ne dara fëkku leen mais ménager yi tamit du ñu ay ngaaka parce que ñoo leen formé ba ñu toll nii. Hmm. boo yoree ay booy xam nga ñi cap xam nga ñi yonkon xam nga ñi taxaw pour dem. Hmm. xam nañ ñëpp mais dañuy ànd ak njaboot gi yëpp gérer mais am na ñoo xam ne bu ñu dañu ñëw pour fël am na ñoo xam ne dañu am pour am tur am na ñoo xam ne bu ñuy jekk di dem. xam nañ am na ñoo xam ne bu ñu doon yor milliard fa la ñuy toog. ci yow xam nañ ci bu ne. am na ñoo xam ne bu xaalis bi commencé bari sax ñu commencé changé kanam dala wàññil defal nii defal am na façon bu ne. mais na am na ñoo xamante ni sii dara fëkku leen dara yóbbu leen seen ngor ma ñu ànd ak yow ànd ak yow. am na ñoo xamante ni si nii nii nii booy bëre bu chantage bi ñëwee sax buñ la koy jox à duñ la ko jox à cœur ouvert. dañ ci xaw a dañ waaw waaw duñ ko jël sax nga waaw. am na ñoo xam ne dañ la koy jox ba yëkkatiwaat paas ne la am kooku du changé am na ñoo xam ne boo waree jël di pour cent dañ lay jox 15 may la paas am na ñoo xam ne da ngay dégg abal ma ko xaar ba leneen la dugg na fii dem na fee. nga xam ne ñii nga xam waaw moo tax ñun nañ bu nekk waaw boo ànd ñoom nii tout tànk nii di nga xam ñii nga di nga yàgg ak ñoom di nga xam ne ñii doo yàgg ak ñoom. lan nga gis ci làmb loo xamante ni manqué na ko nga xam te mënoon nañ ko yokk wala loo xamante ni buñ ko dellu si waatoon dina gën a jëmmal làmb lamb daal liñ ciy def mooy fan fans club yi gën a gën a gën a gën a ànd ak discipline bàyyi violence bi mbër yi tamit ñuy xool seen diggante ak seen seen seen promoteurs yi leen di tëgg. Mhm. jàppale promoteur parce que promoteur bi xaalisam mënoon na ko investir feneen parce que temps yi combat ni muy yàqoo day day day rey làmb day day rey promoteur yi. à mhm. ah, une semaine du combat dama blessé. dama feebar dama def lii tamit day yàq làmb mhm. parce que promoteur bi ay millions lay perte te bu pertee pertaat day dem toog te toujours dama naan mbëri seen papa tëggu leen seen yaay tëggu leen seen nijaay tëggu leen mhm. seen ménager tëggu leen seen entraîneur tëggu leen président équipe tëggu leen kii te yëkkati xaalisam di ko jox mbëri am na feneen fu mu ko mën a dugal kon bu ko ci yàlla xiiree ci làmb dañ ko war a jàppale ñun des fois dañ naan dañoo ragal promoteur ragaluñ promoteur yi parce que mhm. leen joxaat cër jàppale promoteurs yi jàppale promoteurs yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. gis nga wax na dëgg rafetlu wuñ ko benn yoon parce que mbër mu ci bëgg combat di nga topp sa ménage. di daw bu yëgitee xaalisam jox la ko. signature bu la sax pour nga ñëw problème la. yaa ngi gis. am na boo yoo xam ne ngay topp combat combat combat ba nga jox leen combat jox avance licence yi pour ñu jox la ko rek da nga ciy toppaat di daw comme golo. lamb daal lamb daal lamb daal lamb daal la ngi noonu rek. Mm-hmm. lamb ngi noonu mais. mais nag ñoom saa yàqoo ñoom ñoo ciy perte de. parce que man sama atelier laa yor maa ngi business dëkk ba promoteur bi tëgg kon yor na leneen lu loolu. Mhm. tey boo demee ci euh, Fallou Ndiaye. Mhm. ma koy nuyu de passage. di ko souhaiter le 29 bi mhm. mu nekk euh, anniversaire bu mag a mag a mag a mag a yi waaw 15 ans yi ñu war a fêter le 29. waaw ah, xam nga rek warul yomb daal. xam nga tey mi ngi ay place am mu ngi atelier mu mi ngi boutique am tey li ñuy jël di ko def si ñàkk mais bu ñu tëjoon làmb day continuer business am. am na sax loo xamante ne sii làmb ji moo ko yàqal am na voyage yu mu waroon def làmb jee ko teree def boo demee ci jëy entreprise am la yor boo demee ci jax entreprise la yor nga dem ci sàmbay place am la yor. ay hmm. eh, mbër yi nga ne dina doon làmb rek lañ yaakaar te ñoom ñooy yàq làmb. teguñ ko fenn. seetaan li ñuy def. teguñ ko fenn. ñoom ñooy grand perdant yi. gis ngeen tey euh, PA sañ seet si woon waxtaan ak moom ci Zarko bëgg waxtaan moom ci xale yi bëgg waxtaan ak ci làmb defe naa ne ñetti point yi nga xamante ne laal nañ ko yëpp jot ci jox ay leeral yoo xamante ni doy nañu sëkk di ko jaajëfal di kontaan ci baax a baax gis nañ li muy daj ci làmb gis nañ li muy dundalee làmb gis nañ li muy jàppalee xale yi di kontaan ci moom di ko ñaanal gudd fan wér-gu-yaram di ko mu mu am kàttan bu mottalee li nga xamante ni moom moom la mbébét ak li nga xamante ni bëgg na ko lépp PA kontaan naa ci yow bu baax a baax jërëjëf maa gën a kontaan mhm. yal na yàlla def jàmm toog ba seen sit bi nekk télé bu mag a mag a mag a mag jaay Seydina Mouhamad mu ngi leen di ñaanal bu baax kontaan ci yow Ouzin jërëjëf jërëjëf di nuyu monde entier di nuyu waa ahlu làmb di nuyu Sénégal ñëpp mhm. jërëjëf gis ngeen mbokk yi noonu la demee woon tey di leen jox dig daje beneen yoon aadama kontaan naa ci bu baax baax jaa ngeen jëf